أذكر الله di sunu mag di sunu xarit ñu bokk lépp diko siar ci bis bi nga xamne moy mooy Cheikh Abdoul Ahad mbake mi di bis bo xamne bis la bo xamne bisu mbekté la bis la bo xamne bisu jël bis buñ mëna màng aw yiw la ndax mbekté mi ci serigne bi amone ba waral màggal gi ñu ñëw nag doon si siyaare sëriñ Moustapha ngeen ñëwoon tàllal ñu micro bi ñu wax ci ndigalam ndax euh, sëriñ Abdoul Ahad mi ñu defal màggal gi ku ne xamoon na ni mu defanteeg sëriñ Abdoul Khadir Mbacké liñ seqoon muy ba nga xam ne moom la waxaloon bappam ne gopp lañ ak ëllëer waaw gopp ak ëllëer nag ku ne xam na ne mënuñoo tàqali ko waaw ah, kon noonu la seen diggante meloon mm, ku ci ne eh, jàppee sa moroom noo xam ne moom ci boppam jàppe wu ni boppam waaw ah, loolu seen diggante meloon moom mi ñuy defal bis bi nag doon koo xam ne jàmbaar yi yoon wi la ndax ku feeñal njabootu sëñ Touba woon ku leen yëkkati la ku taxaw woon yoonu murit la ci wet yëpp liggéeyam bépp mi ngi ko jëme woon ci bëgg sëñ ak taxawu yoon wi ak feeñal nag waa kër sëñ yàlla may na ko ci ndam ba mboolem euh, ni ko sëriñ bi bëggee woon rek yàlla may na ko ci lam ci yootu woon bëgg ko cee lëggéeyal tam wóor ko ne lii dëppoon ak li sëñ bëgg yàlla may na ko mu réussir ko ba am na ci najaax ak tawféex kon nag duñ def loolu taas ci bis bi euh, roy ci moom bëgg gi bëggoon sëñ ak wéetal gi mu wéetaloon sëñ Touba. ak taalibe gu rafet gi ko yàlla defaloon goom ne lépp da ko ànd ak toroxlu moom ak woyof loolu ko ñëw ci bis bi loo ci jàng rek mu mën laa jëriñ yàlla na nu yàlla dimbale bañ jële ci loolu jële ci gën a bëgg sëñ Tuubaa jële ci ak bi gu rafet eh, bu ko defee nag uh, loola luñ ci am rek bu ñu ko sëñ bi téyelee suñu àdduna dana mën a jekk suñu àllaaxira mën a waaw ñu ngi nuyu suñ mbokk yi ñu fi dajale yëpp di leen siyaare di siyaare nag mboolem bokki taalibe yi ñu fi dajale waaw tey bég ci bis bi di ci bànneexu tey ñaan yiw wi ci yàlla séddale yàlla jox ñu ca kenn bañ ñu ci ëppale wa kullu haamin wa antum bi xeyrin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ومن زاد mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi soxna si nga xam ne moo tax ñu daje fii muy soxna maam Bousso Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke muy bis boo xam ne bisub bisub yokkute la waaye itam bisub texe la li tax mu nekk bisub yërmande mooy fu ñu fàttalikoo ku baax yërmande suñu borom daf fay wàcc si ñu ngi fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad Mbacke kon bisub yërmande la bisub yokkute la itam ndax réew yi gën a yokk am ak yokkute ñaar da ngay fekk seen i bibliothèque seen i kàggu ay mbind yoo xam ña ngi fa def eh, seen i jaar-jaar yi seen i nit ñu baax seen kilifa ngir seen i ndaw man koo xam mën a xam li ñu am ba man caa roy ba tax duñu mën a def li ñuy wax roy dàq ci lu baaxul kon bisub yokkute la waaye bisub tam texe la ndax dañu wax ne eh, ku fàttaliku ku baax rek dafa mel na da ko indiwaat ci àdduna mu mel ne boo ko indiwaatee ci àdduna kon dafa da ngaa moom ci bis yu mel nii ulaayika alxawm laa yasqa jalisuhum yuksibuuna almuridina saadaati ñooñu ku jotaay ak ñoom rek Serigne Touba nee na da ngay texe waaye doo ci jële mukk ak texe di Cheikh Abdoulaye Mbacke nag ci gàttal Serigne Touba ci kenn ci njabootu Cheikhul Khadim waaye nag yàlla suñu borom dafa bokk ci su naam ñi mu namm tànn boole leen ci ay tànneefam dana leen jële ci aw askan wu baax moo tax mu jële ko ci askanu Mbacke benn ndax bu ne Serigne Touba rek doy na sëkk waaye itam ci wàllu njaxate tam boo ko tuddee soxna Mariam Jaxate ñoom ñëpp nga xam ne ay leer lañu waaye alquran lañ yiw lañ waaye itam Cheikh Abdoulaye Mbacke doyloo wut askan woowu nga xam ne rek ci la yem donte doy na fa la ko suñu borom euh, baaxee waaye nag dafa def li sëñ bay Jaxate waxoon rek ci dénkaanim boobee ba mu koy wax ne ko di ko wax ay nijaayam yu baax yooyu dana ko nag loolu ab yóbbal la ndax baaxi bokk moo di yóbbal kon nag faxal raw des des Cheikh Abdoulaye Mbacke noonu la def moo tax mu fàggul boppam ci yitteem ak pas-pasam bu kawe euh, personnalité waaye itam yitte ak cër bu mag boo xam ne fu ñu tuddee Cheikh Abdoulaye rek laataa ñuy wax na mu demee ci Serigne Touba. dana mat sëkk personnalité dana mat sëkk royukaay dana mat sëkk ab sëriñ loolu nag ab liggéey la boo xam ne moom moo ko liggéeyal boppam moo ko fàggul boppam kon moo ko dox la ci tegawaat mooy Serigne tubaa defal ko ci ay ngëneel ndax kere ba mu gënee àdduna bisub altine la benn loolu suñu borom moo ko tànnal mu bokk ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu gënee àdduna loolu kon doonu nañ ñëpp la ko yàlla suñu borom di defal kon yàlla suñu borom tànnal na ko moo xam la tax la ca tegawaat tam mooy keroog ba mu gënee àdduna ci bisub ñaar fukk ak ñett ci weeru sawaal muy weeru korite yi ñu nekk 1914 booba sëriñ bi daf cee bég lool ndaxte daf caa wax ji yéeme yéeme dafa ñaanal dafa wax mag ña fa nekkoon ne leen nañu ko ñaanal mu mu gudd fan ndax moom de am na ci moom yaakaar loolu tax Cheikh Abdoulaye Mbacke dara wax naan yaakaar jooju nga xam ne sëriñ am na ko ci moom mu ne su ma ko nammee tas yàlla naa ko wuute waaye nag tasu ko benn yoon ci ay liggéeyam ak waxam ak li nga xam ñëpp teg nañ ci bët la ci tegawaat ci ngeen li nga xam ne am na ko itam mooy keroog euh, ca bis boobee nga xam ne ca la ñuy doon def teraanga ja dafa Serigne tubaa daf ko dafa ñëw ci moom bi mu mu ne ko jàkk xool ko ci loolu bariwul ko Serigne Touba di def ak ñu mu koy defal daal di digal sëñ Mad Lamine Diop Dagana ne ko na jàng xasida gii du fusti bi sarfil xasanaat xam nga boo ne fusti bi sarfil xasanaat sayidatan li mohsinaat mariam nga ciy teg fuxti mookinaat ca moom waajuram mariam la tudd kon am nañ ak jote goo xam ne am na ko digganteem ak euh, mariama moome ak mariam mu mag moomee kon mook sayidnaa Isaa moomee itam am nag jote waaye kon loolu mbirum biir la ba mu ko ko jàngaloo ñetti yoon la ko jàng mu digal ko ko mu mu mu yéene ko ko maanaam daal mu wal ko ci moom mu tafle ko ci moom kon loolu itam biir la moo xam ne am na lu nekk ci biir waaye loolu lépp itam du Abdoul Ahad Mbacké moom loola Serigne tubaa amoon ci moom yaakaar daf koo dox daf koo jëfe ci nangu kilifteef ndax ba mu ba mu jaaree fa ñu baax ñëpp di jaar ci jàng alquran ba mokkal ko fekk Serigne tubaa eh, làqu jamono dafa daal di nangu kilifteef di jàngale tam ne dañoo war a nangu kilifteef waaye jàngale tam ne yoonu yoonu toppante la moo tax thème ren bi sax boo seetee loolu lañ jël. loolu Cheikh Abdoulaye Mbacke da caa dox ay jéego yu am solo loolu moo waral dafa daal di jël kaamil bi jébbal ko Cheikh Mamadou Moustapha topp ci moom def ko muy Serigne tubaa ba mu toppee ci moom tam liggéeyal ko tam boole ci moom mbokkam yu baax yi Serigne tubaa itam Cheikh Mamadou Moustapha gërëm ko lool. moo taxit dëkk yam njëkk a sanc boo seetee yooyu yëpp ci ndigal Cheikh Mamadou Moustapha la moo xam da ngay tudd lu mel ne Daaru Rahman gi nga am mosoon na fee nekk wala nga tudd lu mel ne. kàbbu gay wala nga tudd lu mel ne kàddu baloo ji ak faneen ak faneen fu ca nekk rek ngir liggéey ak jaamu yàlla ak tàggat taali taalibe yi ci ñu mënal seen bopp waaye itam mën liggéeyal Serigne Touba ba mën a jariñe loolu kon ci la doon dox Cheikh Abdou Lahad Mbacké nag liggéeyal Serigne Touba bu baax a baax ni mu ko waxee woon ndax moom kat gëm gi mu gëm Serigne Touba ak taalibe gu dëgg gi moo tax mu xëy rek daan ne ay mboolem ay naafila muy ay julli mbaa ay jàng alquran mbaa lu mu a doon nee na xëy na xëy moomaliwu ci boppam dara waaye nee na jox na ko Serigne Touba loolu tax man de sëriñ bi dafa xëy xëy rek yàlla dafa xëy xëy rek jël sama xol bii ubbi ko jël sëriñ Touba dugal ko ci kastewaat ko loolu Cheikh Abdoulaye Mbacke moo ko wax moo tax mu ne woon man man de maane daane nag maane ju nekk nag moo ne wuti fa dara daane danaa ne maane bu bu àllëgee fu ma waxee wala ma defee lu wuuteeg lañ ne woon maane lañ ne moo ne su boobaa ñu xam ne tekkiwu ma dara daane man nag maane li fekk maa ngi fi nekk man Abdou Lahad Serigne Touba rek laa fii nekkal jox naa ko sama nekk fi jox naa ko sama ñàkk nekk fi jox naa ko sama yëngu jox naa ko sama dal ni mu ko joxe woon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax moo ne xayaati wa maati xarakaati wa sakanaati maa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal Serigne tubaa bu wér a wér a wér nag ci wàllu yëpp ndaxte boo xoolee day mel na li Serigne tubaa bëggoon ci lépp mu bind ko Cheikh Abdoulaye Mbacke da doon xool yéene Serigne Touba jooju di ko mottali ci jumaay Touba nga koy tàmbali ndax moo leen woowoon wax leen ko moom magam yu baax yooyu ak kilifa yu baax yi mu def ci yokk bi mu ci def ak liggéey bi nga xam ne kenn ku ne xam ne war na ci Serigne Touba wane ci itam kóolite gi mu am ci Serigne Touba ndax ba mu ciy laaj milliard ak genn wàll naqari jamono taxoon ñu bari jàppoon waaye dafa xam Serigne Touba moo tax moo tax keroog ba muy woote ne tey la ñuy teg xeer wi fekk loolu daa waroon a mat moom jàpp na bis ba noppi ca matagul waaye ca guddigal la ndaw dikk mottali ko ko mu xëy nag wax ak nit ñi ne leen ba ngeen gisee ma waxoon li ma waxoon ba ñu bari doon ci jeex a jaaxa dafa fekk ne man melo jamono ump ma ndax la ma amoon daaw ci wax na ko waaye damay tënk rek wuute nag li ma amoon den ca arène kon xam naa ne jamono jamono ju naqari ump ma waaye nag damaa xam ne mbay mu nangu xol yu nangoo ko gën ca xol yi moom nangul nañu Serigne Touba ba noppi duñ ko gàntul loolu am na lu muy wane bu wér a wér moo tax mu def ci liggéey bi ñu ci def nga daal di ñëw ci Serigne Touba fa mu waxoon ne kanzil kitaab wal xadiis wal adab laa jamu fiidatan wala jamu saab sama koom sama coffre-fort boo fa ubbi woon doo ci fekk wurus doo fa fekk or man Serigne Touba waaye loo fa fekk alquran xadiis waaye xam-xam mu daal di naa mu daal di taxawalal Serigne Touba liggéey bii waaye bâtiment bu mag bee mooy lan daari kaamil da nga fa fekk alquran ay junni junni la ci gën a yéeme ñoo xam ne fii lañ ko bindee waaye danga ca fekk xam-xam ci fànn yu wuute nag lu ne fo loo fe foog rek géographique wàllu xam-xam ci wàllu science diine nag dama ko jëlale xasida yi ak yi nu wax ci Serigne tubaa ci ay woy waaye li Serigne tubaa taalif yooyu yëpp nga fekk ko foofee. nekk noonu itam Serigne tubaa dafa waxoon ne bil Moustapha lii banal quddus madrasatan bihaa yasulu aza wal jahlu wal kabadu ci barke yonente bi yàlla dana ma tabax taxawalal ak daara joo xam ne nii ku ca tàbbi da nga tàqalikooku réer da nga tàqalikooku tam li nga xam ne mooy njàqare mu daal di naa la Serigne Touba université bii nga xam ne ci université yi gën a mag ci àdduna loolee la ko naan la kon lool lépp tam day wane ne moom dafa xam Serigne Touba xam tam ak bëggam mu dàkk ko fa moo tax loola moo waxoon ne li fekk maa ngi fi nekk Serigne Touba rek fi laa fi nekkal noonu li fi nekk la Serigne Touba ba xëy jamono ak liggéeyam di des ba faawu nag moo tax itam Cheikh Abdoulaye Mbacke ni kilifa war a mel dëgg-dëgg mook mbokkam yu baax yi ndax damay wax ne moom na nam meloon mbokkam yu baax yi loola firnde la ci ne ñu xam ne ñoom ñëpp benn la ñoom waa kër Serigne Touba yi dafa toll ne koo ci waxtaane rek da ngay defee ne moom rek la da nga naan kenn du moom waaye boo dee wéy di waxtaan ci ñi ci des mujj ne nekk kenn du ñoom moom na loolu la xamal moo tax ku ci gis rek Serigne la la jàppee kon loolu la liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba gërëm ko magam yu baax yëpp gërëm ko ba ni mu nekk Serigne Touba itam taalibi Serigne Touba yëpp gëmoo gërëm ko kon dafa liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi ca jaami yàlla gi gën a kawe ci jaami yàlla mooy jaami yàlla ci jaami yàlla yi moo tax ñaata aajo la faj ñaata la dimbale bañ mënal seen bopp dafa defoon ci këram gi mbaar moo xam ne ñi waaye néew doole yi tumuranke yi ñooñu fa lañ daa nekk seen añ seenu reer seen ndékki loolu lépp dara du manqué kon jaamu na yàlla ci jaami yàlla yi ba yàlla gërëm ko liggéeyal Serigne Touba bi gën a kawe na mooy liggéeyal Serigne Touba ci taalibe Serigne Touba yi moo tax liggéeyal na s Touba ba ci taalibe Serigne Touba yi Serigne Touba ko waaye taalibe itam gërëm nañ ko ay xadisam nag ay waxtaanam moo tax fu ma sànne asalaamaaleykum ku masaan di dox da ngay taxaw lu waaye masaan def tam da nga koy bàyyi ndax bëggoo ab baar raw la ca ndax xakim la woon ay baatam dala daa dimbali ci àdduna dala daa dimbali tam ci wàllu diine dama ko jélale kon moom dafa nekk koo xam ne daal jëriñ na ñëpp ni ko Matar Diagne waxe woon rek Cheikh Abdoulaye Mbacke ku mu jamonoonteel jëriñ na la boo ko yëgee boo ko yëgu jëriñ na la di sant ñëpp nag di sant waa seen TV wasalaamaaleykum wa rahmatullah وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمدنا المختار نور الناس مولده مساسه الخناسي فالخير مطول أنينا وخاد للقرآن والفنون نبينا أحمد خادني إلى ربي وربي له محل إلى يسر خاتي رسول الله عليه تسليمات مخصي الله ñu seetaan yëpp ci Abdoulaye Lam ñu leen di nuyu turu sunu kilifa yi nekk ci sëñ am sër ñu Cheikh Abdoul Ahad ak bokk tari bi teew sëñ Maam Moon Mbàkke sëñ Maam Cheikh Moussa Moon Fara ak sëñ Abdoulaye Sy bi moom bokk tari bi yëpp teew yëpp ñu leen sant bu baax di leen gërëm te ndokkee suñu bopp ci bis bi ndokkee sa bopp mooy kii nga xam ne moo ñu fàttaliku tey jii ñu fay ci jamono. Mhm. indaale sëriñ ci bu rëy mooy yaakaar Sëriñ Tuubaa bu ñu feeñee Sëriñ Tuubaa wax ne jàpp laxaat koo yaakaar naa ko mhm. te Sëriñ Tuubaa mosul sa yaakaar yàlla moo tax yàlla du si yaakaar mukk mhm. mu ne moom am na yaakaar ci moom te ñëpp gis nga xam ne yaakaar ju dëggal na ko ndax bokk na ci lay bay des ko njëkk a déggee sëriñ bi wax ne tur wi ko man doo dem safar bañ di ko bind ci miir njaay ci njaareem ci seng yaag miir yaag fu waay dox bind ci ndax kenn ko naa jàngaloo ma ma ma ma boo xam ne tudd Abdul Ahad ñu ne Abdul Ahad Abdul nanga mu léegi Abdul kenn yàlla rek jaam wajji seen mina xaq yi jaar xaquli sar fukki bayit yi kenn ku nekk ci tàmbali Cheikh Modou Moustapha bi Cheikh ku ne amul ñaari bayit ci waaye boo demee ci ñaari bayit Cheikh Abdul إذا ما ترونا أي فصنا بمختبرهم سابجا الأخرى رجع جابني مم كي كي كي مم خيال واتيهم من دار خيال خار يمين يبي يقول خبيني كده ما يقول خير نعم. لا سيبلا ني ني ني ني الخار دوات كي صلى الله عليه وسلم نون عندك نخ جميع الخار ما يتخو بتجينا نص عربي فهذا ما نجح الخار بدون بدون هيكل ما نخلي ماي نقول هاي ماي ماي ماي جم جتها ورك noonu la alxuraan daan ci moom nga xam ne mur sadi wax na bu waxee nga ne judd àq na bu waxee nga ne borom xam-xam wax ñëpp xam nañ ci moom ba ñu génération bi xam ne noo ñoom ku nekk am nga loo rey mm. bi ñu jëkk jox murit mooy ak col ne foo ko rek ñu ñu bàyyi daal da sol création la boo xam ne mu def na ko moom loolu ñëpp gis nañ ko ba mu njëkkee dikki taxaw li mu njëkk a euh, dàq ci yoon wi mooy caaxaan ak wax juum fan xamna seigne touba ci boppam ci xol la nek bu jàggee nuy nuy kess ko ay na nga fexé rek comportement comportement judi boo xam ne ku la gis xam ne murid nga la ko xam xamna murid nga mooy kan, mo da nga djub da nga ngo jam yalla da nga ngo liggey ndax nee na àjjana ju andu jam yalla xam ko teram ju ànd nangoo liggey xam ko ba tax mu dikkee mu jëm touba beral ay bokki ka bu gey yu yep mu teg ko ngir la ngir wax ni dama dama bu bëggee jëriñu àdduna fii dina ko sopp bëggee teraanga ëllëg ndax sëñ bi suñ waxoon ne adduna teraanga maanaam teraanga sutura kon nag ku bëgg si sutura na nga xam ne doomu aadama diggante bi loo loo loo farlu farlu rafet ci diggante bi kon adduna teraanga am fi sutura fi am sëñ bi nag ku bëgg nag da ngay da ngay nangoo liggéey àllaaxee ku bëgg yàlla yërëm ëllëg da ngay nangoo jaamu yàlla loolu ñëpp gis nañ ko ci moom ba fu ma sax asalaamaaleykum rek seytaan daw moom I Vajjato Vajjato aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant xaadimu rasul borom yoon wi di sant Cheikh Abdoul Ahad borom bés bi di santit soxna Kiné Mbàkke mi nga xam ne moo nu fi dajale tey te mbooloo mu toll nii ak nit ñu demee nii jikko rek moo leen mën a dajale kon danaka li ëpp ci wax gi mën na nekk jikko te jikko ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla taggee lamin naar ne ko wa innaka la ala xuluqin azim sayduna muhammad yàlla mënoon na koo tagg ci abdallah mënoon na koo tagg ci aminata wala wahab wala waaybu waaye daf ko tagg ci jikkoom na mu mel min asabri wa shukri wal adli وجودي والسجاعة والتودع والعفة أتى مدى الذي لم يلد ولم يولد رب الملائكة والجبروت نكو إنك لعلى خلق عظيم نمو مل ويف نمو مل تي تاب نمو مل لابير نمو مل نوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمنا بين بندكات نانك الزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدحر في إمامي كسحر في طرفين ينتمي صلى الله عليه وسلم دفع نوي بمل نودر واو سين توبا نينا لو من الحلم ما لم يحوه جبل لقى لو في البرايا وهو صبر نينا لو من الحلم سيدنا محمد امنا كي ليبت لو خامني ما لم يحوه جبل دوت سخ اموكو دوت نولا نيه نكاي ييغي دوت نولا نيه نكاي واتي دوت دو اون دوت دو بيني دوت دو نسون نار waye seigne bamba neena li yonent bi am ci lewet doj amu ko law min al hilmi ma lam yahwi jabal la xàlloo fil baraya wa huwa sabar neena dajje nak lor ju bari ci binde fi waaye muñ katu natu yàlla ba sayidna muhammad yàlla def ko ne fa bima rahmatin min allah linta lawum sa jikko yu sel yi sa yërmande ju bari ji sa noy gi nga noy ci binde fi mom la nit ñi mele ni ci yow wala kunta vaadan lan fa do min hawlika so do kon merkat bu deuke fot fot do saf nit ñi fo toog mu wet kon lan fa do min hawlika fo toog ñu jóg dem ci la fa walaw kunta vaadan lan fa do min hawlika walaw kunta walaw kunta xalidal xalbi soo doroon borom xol bu tal bu iñaan bo xam do yene ken dara te kula togn bu la jégaloo do ko jégal do saf nit ñi kon li tax mu saf nit ñi mooy li yàlla wax ne xarisun alaykum bil muminina ku xër la ci yéen su la séenee mooy ëpp jéego yu mu dox su ngeen nuyantee ñaari loxo lay jox su jamante gi yow Seydina Muhammad mooy mooy njëkk a noppi yaay njëkk a noppi jikko yu sell yooyu nag moom la soxna si am ba man ak sama moroom ñi ñu gisul feneen ñu di gis fi ñoom jikko am na ñoo xam ne jikko moom rek moo leen ban dajale bàyyam Cheikh Abdoul Ahad yal na yàlla dolli leeram ci jikko la mas di dajale bindeef yépp ci jikko la yóbboo yoon murit fu mu segg ci jikko la jëfe ci yoon murit lu kenn mës jëf dama ko daan wax ne lam tazal te it walam tazala fi itmami turkati Cheikh Ahmed Bamba wóor na nu ne musoo dañ te wóor na nu ne jamono du dox ba nga dañ ci di mottali tàmbali tàmbali xaadima sul yi mu tàmbali bàyyi yow moo tax la xad rajaw wa aaxira wala yu xëyiba raj yi ma saa rajalli xaddi yaakaar nan la jox nan la sunu bopp foo nu jëmee nu jëm fa la na ko waral moo di wóor na ne yàlla du tas yaakaar ju boroom ëllëg tax mu jóg nun sunu yaakaar yi ëllëg rekk ko tax a jóg waaye noonu la ko assimilé nag tegal nu ko ci dëgg tegal nu ko ci njoon wannu cheikhul xadim li mu doon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wannu sayduna muhammad li mu doon ci yàlla daraan wax ne yéen nit ñii cheikh abdullah tay wax ni yeen nit ñi dara waru leen mom luddul yalla yeen nit ñi dara waru leen mom luddul yalla te lu ngeen bëgg su yagge loolu mom leen te yeen dara waru leen mom luddul yalla way bayyi ma ci kaw suuf kon nit musta dañ mana cheikh abdul had musta dañ di won nit mom ci bopam moy kan moy kan ci kanam boromam moy kan kanam yoninuk sayyidina muhammad moy kan ci kanam khadim kan rasul cheikh ban ba mi xetali jamni kon nañu delu ci wat bu baax ci bis bi ci fatali wat qualité ak melo yi nga xam ne nekk na ci namousik bi di modelu yàlla mu teg ko ci sunu kanam muy royuwaay waay ba nu mën a roy ci jikko yim mu bàyyel ba nu mën a roy ci ndigal yim nu doon jox lëf li yàggut démb rek la te boole ko jiitu ci sunu kanam di ko jëf te génne ci ay nataayij yoo xam ne nun ñëpp ko gisandoo kon soxna kii ne noo ngi sant di sant taxawaay bi da nga gis ne modèle nga war a doon ci lislaam da nga gis ne da nga war a xool ca Fatima war a xool ca Aïsa war a xool ca Khadija war a xool ca Mariama te loolu la sa maam ju baax ja defoon jaaratullah dafa xooloon ñu baax ñu ko jiitu te di jigéen mu takku xam ne ba muy ñëw mu wax ci kër Serigne Mor Anta Sali ne li ma jaaxal bañ koy yob mu ne leen li ma jaaxal mooy li yonent desul ci kaw li yàlla wax ne ab yonent duutu wàcc loolu rek ma jaaxal waaye su yonent desoon mu wóor man danaa ko wàccee waaye danaa fa liggéey loolu yëpp gis waaye ndokk bi mu amee Cheikhul Khadim ndokk bi mu ko joxee Mouhamad Mamor Diarra Mamor Diarra di ma Xaadimu Rasul topp ci moom sëñ Tuubaa di kéemtaanug yàlla bu yàlla indi te Mamor Diarra mi mu bokkal ndey ak bàyyi ko njëkk nangu ñi mu bokkal bàyyi nangu ko ñi mu bokkalul bàyyi nangu ko xam ne Sëriñ Bàmba njëriñul adduna la parce que sunu borom a koy bar muy sunu njëriñ mm-hmm. kon yàlla nañ ko xam te nangu ko sunu boroom nangul lu sunu jëf maa ngi sant yalla ndax ño may ma ñew fekke bisu mu mag bi nga xamni moy bisu Cheikh Abdou nga xamni kep ko xamni da ngay njabotam ba ngay talibé ba ngay soppeem ba ngay euh fas nga yéene di fi teew sa yu ko rattee fekk ma nekk bitim rew wala ma am galankor yo xamni ne mënuma jéggi ndax Cheikh Abdou sama lepp la won sama bay la won sama xarit sama wëllëre te ñett yëpp doxal nako ndax dafa nekkoon sama wëlëre bàyyi lool lool lool tabarkala tabarkala fi sama baay jógee mu ma sama wëlëre sa baay te loolu dafa ñëw ba pir wax ma loolu ba mu ko jàlli si yow laa ko bëgg a continuer may sa baay kër gi jàpp kër kër sëñ Amat Sise loo nekk naa ko xam loo bëgg naa ko xam ñu jaxaw sa woon lool fa la boo maa ngi bitim réew nekk ambassade di dem ak a dikk saa yu ma ñëwee rek jël ci kàddu yoo xam ne kàddu njariñ la ndax Cheikh Abdou dafa nekkoon kilifa diine goo xam ni dafa amoon xam-xam fa tabarakallah am intelligence fa tabarakallah am courage maanaam am fit boo xam ni ak xel moo xam ni lu yéeme woon loolu la yore woon a tariqatul muridiya loolu la yore woon diine lislaam ci jamonoom tax na nguur gi gën a fonkaat sëriñ ndax melokaan wi ko yàlla joxoon ak fulla ja ak fayda ja ak taxawaay ba taxawoon na nguur gi gën a fonkat sëriñ ñoom ñëpp jox ko ñu jox ko bopp di ko laaj di ko déglu te man mii billaay wallaay tallaay bi Abdou Diouf soog a toog ci nguur gi 1981 la nekk maak moom ca Qatar ca réew arab yi ma ne ko bu ma sañoon Baye Cheikh Abdou nga gën a jaxasoog moom gën ko jox sa bopp ndax gis naa ni kilifa goo xam ni ku ko jox sa bopp doo ko wedd Abdou Diouf nga may dégg du ko weddi maa ko wax loolu te ku ne xamoon ne digganteem Abdou Diouf ni meloon bari na loo xam ne bu ko daan wax Abdou Diouf mu wax ma ko damaa ñëw bis mu ne ma ab Abdou Diouf de am na ñaari mbuus ma ne ko ñaari mbuus mu ne ma waaw mbuus moo xam ni lu bànneex réeré ci la koy denc ba seet na ma koy jëriñoo ak mbuus moo xam ni lu naqar réeré ci la koy denc ba seet na ma ko saafara ni ma du jaaree mu ko te lu baax na ci kilifa nekkoon nag bu mu jóg ci loolu mukk ma dem wax ko président Abdou Diouf mu ree ni ma ah alhamdulilah rabbil alamin bi daal xam na ma saa xam ma bàtti problème bu dikk ci moom rek fa tabarakallah yalla may na ko xel ak ak fu mu koy jaar fu mu koy lijjantee ba mu leer ba lépp nekk jam tàng bi nekkee ku ne xam na ni Sénégal gënoon na fee dal te itam diggante diine ji ak nguur gi gënoon na fee leer gënoon na fee dëgër gënoon na fi am waaye ah ba mu fi jógee moo ko mel ni mbokkam monsieur Hadj Abdoul Aziz ci la rëng-rëng ji ba léegi ba tax na kenn du leen fàtte ndax seen taxawaay ba tabarakallah yàlla nañu ko yàlla fayal yan yàlla dolli leeram ñu ngi nuyu Cheikh di Maxtaar mi nga xam ni mooy xelifaam di jaarale ci moom itam nuyoo xalif bu tedd bi Cheikh Sidi Maxtaar xalif général di murit di nuyu njaboot ma borom Touba gépp di leen ziyaare di feddali mbokk ak kóllëre wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.